asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM daleen ak jàmm ci seen émission SOS santé tey ñu am mbégte euh, di ci dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Cheikh Mbacké di délégué personnel euh, bu entreprise bi di Médis Sénégal di yëngu ci wàllu garab asalaamaaleykum Cheikh Mbacké ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Oulimata maa ngi lay nuyu di nuyu waa auditeurs yu Rewmi FM yëpp di la sant di ci daal bi ma daal pour ñu wax ci Médis en particulier suñu entreprise mais aussi. industrie pharmaceutique euh, en général quoi muy Sénégal. donc Cheikh Mbacké comme ni ma ko doon waxee sànq nga nekk euh, délégué personnel bu Médis Sénégal tey jii ni boo ñu doon présenté Médis Sénégal ngir sénégalais yi ko xamul lan nga ñu ciy wax. waaw Médis Sénégal nag euh, mooy ngi présenté damay njëkk wax ci histoire donc mu daan entreprise bu yàgg Sénégal ndax ñu créé en 1973 président Senghor moo créé woon donc pour répondre à. aux besoins de médicaments de santé publique médicaments essentiels au Sénégal. Mmh. à mm. un coût abordable pour les Sénégalais. maanaam ah. maanaam ci wolof. waaw mu donc mu créé ko pour euh, ñuy am médicaments yoo xam ne dañ moo defal Sénégal yi waaye itam mu nekk prix boo xam ne Sénégal dañ ko attan. Mm. ndax xam nga garab bu ñu defaree Sénégal mooy gën a yomb garab bu jógee France wala Europe. Mm-hmm. donc loolu moo taxoon président Senghor ci vision am mu créé ko donc depuis 1973 entreprise bi nag euh, mu ngi tuddoon Sipawa la tuddoon Sipawa. Mhm. donc jaar ci invitation yu bëri nag ay ñu bëri jënd nañu ko fi ay France jënd ko tunisien yi ñuy wax euh, MEDIS mu benn groupe international jënd ko. Mhm. donc 2017. donc MEDIS nag di ay garab yu bari. ay mhm. garab de li ñuy wax médicament de santé publique. médicament essentiel médicament de base. donc moo koy wax mën naa wax par exemple phénomène bi ñuy wax nii doon faj. Euh, faj épilepsie moo ko defal paracétamol bi ngay dégg. te mhm. ay yëpp bu nekk rupture ci pharmacie yi. mu ngi mën blister yi. di defar Séraspir pour mag ñi mag ñi seen yaram yi métti ñi dañ koy defar di defar fer pour jigéen ñu warul ñi. di defar ay piqûre pour sibiru sibiru maanaam sibiru euh, euh, yu bëri ñun ñoo koy defar. Mhm. ay piqûre ñu piqûre gars yi. Mhm. donc mu di par euh, entreprise bu fi yàgg depuis national waaye itam doon répondre à. vraiment ci ci ci Afrique ñu bare bare ñun ñoo doon fournir ay médicaments. Mhm. donc noonu laa mën mhm, kon mu nekk lu am solo. Euh, parce que euh, tey jii nii li nga xam ne moom mooy euh, réew mu mel ni Sénégal am li nga xam ne mooy industrie pharmaceutique am loo xam ne vraiment daf koy defal boppam day nekk. ab ngëneel ngir askan wi wax nga ko mais yaa ngi aussi ci sa wax que ni ay entre ay maanaam multinationales yu bëri ñëw nañ jënd ko et tout. mais tey jii nii est-ce que euh, lan nga ñu mën a wax ni tey moo tax par exemple tey Sénégal mënul am mbiru boppam gérer ko boppam sans pour autant que multinationales yi di def ci seen loxo. waaw donc euh, loolu de day répondre rek avec euh, vraiment le la problématique de de l'engagement des autorités Sénégal quoi mooy effectivement benn waat nga benn entreprise boo xam ne c'est une. un patrimoine national nga xam ne comme ni ma ko waxee moo créé. Mhm. moi je suis pas contre sax que en fait multinationale la xam nga c'est un boo xam ne c'est un domaine très pointu bi affaire médicament. Mhm. yaa ngi dégg donc des fois multinationale il parce que ñoom ñoo ci am xam-xam ñoo la ji ëpp xam-xam. Mhm. waaye li am solo rek mooy bu ñëwee nga encadre leen. cest dire mooy encadrement des investisseurs au Sénégal. cest dire ku ñëw comme chinois ci ay accords yu leer donc euh, man contrement ay multinationales ñëw mais on doit les encadrer tout mm-hmm. simplement. Mm-hmm. que boo ñëwee dana la da ngay liggéey ak Sénégalais yi que da nga fi war a def lii da fi war a def laa amoo droit nga tëb rek xëy fermer entreprise parce que parce que patron national la te contre ñoom ko parce que euh, c'est un domaine très pointu dafay laaj ay xam-xam yoo xam ne peut-être ñoom ñoo ko ñoom ñoo mm-hmm. man encadrement am problème quoi. d' accord euh, euh, tey jii ngeen toll ci situation boo xam ne MEDIS daanaka euh, dafa fermé donc mu nekk situation boo xam ne mu ngi bëgg a yàgg tey mën nga ñëw ci contexte bi nga xam ne ci la ñu fermé woon entreprise bi. waaw donc lu tax ñu fermé ko en fait comme ni ma ko waxoon MEDIS donc SIPOA ñu ko wax ñu ñu ko wax ñu ko wax SIPOA mu jaar Introp Pharma. Mhm. pour pas sax mu jaar ci ay loxo yu bëri comme ni ma la waxoon xam nga jaar na Rhône Poulenc jaar Sanofi. muy français yi ñoo ko ñoo ko jaay en 2017 mais lu tax ñu jaay ko mais tout simplement parce que problème yoreen la moo tax jaay moo moo tax jaay entreprise bi. Mm-hmm. donc yoreen boobu nag moo fa nekk continuer ba léegi moo gàllankoor yu baree bari maanaam ni ñuy doxalee ñi fa nekk njiit jàpp naa ne dañ tële. dañ mm-hmm. mënul donc loolu moo tax euh, ñu ay porte ay problème perte financier ba léegi di tax ñu jaay en ñu pa tax ñoom français ko nag problème nag moo fa nekk ba léegi nag ñuy andi ay ay perte. léegi nag gars yi nag teguñu solution pour régler ko. Mm-hmm. léegi dañ ko bëgg a teg problématique ñu bëgg ko teg emploi yi nag loolu lañ d'accord. parce mm-hmm. que mënoo xëy boo xam ne depuis 1973 mu ngi dox nga xëy rek ne da ngay envoyé ñëpp ah, ñu dem seen kër toogi doo leen fay lool moo indi problème bi moo tax ñu nekk ñoom ah, ci benn euh, différent mm. boo xam ne yóbbu nañ ko inspection du travail wax nañ ko autorité yi ba léegi donc euh, mënul am saafara. entreprise bi ban année la la tëj boobu ba léegi. ban la. tëjoon. waaw ñu non c' est c' est quinze janvier deux mille vingt la tëj. d' accord. Mhm. quinze janvier mm. euh, tey jii nii ngeen nekk aussi ci ay jafe-jafe yaa ngi koy wax sànq ba tax na yéen liggéeykat yi yéen a ngi xaax ba léegi ay juróomi milliards yoo xam ne nguur gi daf leen ko war a jox pour ngeen relancer seeni activité mais quand même mu tombee aussi ak période boo xam ne loolu day nekk lu jafe ndax période Covid bi ñu nekk tey jii nii est-ce que yaakaar ngeen ne di ngeen am gain de cause ci situation bi nga xam ne euh, ci euh, lañ toll muy crise économique. non uli ma uli man man je crois que le contraire dafa waroon mm-hmm. dafa waroon yomb. parce que en fait pandémie dafa woon ne ne les gouvernement la yox le les les les les les secteurs prioritaires mu di maanaam ci ci ci ci joxinu réew secteurs yi nga xam ne ñoo gën a am solo. te mm-hmm. santé dafa pandémie dafa woon ne carrément que santé dafa am solo ci réew. moom mm-hmm. te ñàkk. yaa ngi dégg. Mhm. donc chaque réew mu ne war dafa war a jéem pour gérer santé le minimum en tout cas le minimum de base même soo ko mënul gérer yëpp le minimum de base da nga ko war a am léegi président Macky Sall bind na lettre officielle boo xam ne c'est clair un président de la république bu ni moom wax ndigal gouvernement ne nañ def rapidement pour que entreprise bi dox. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. te itam booy déglu si ay sortem toujours ay affaire euh, buy wax ak euh, les les comment non les réunions même les réunions internationales. Mhm. da ngay dégg ñu naan euh, souveraineté pharmaceutique souveraineté sanitaire. mais industrie pharmaceutique. Mm. waaw mais xam nga nag li ay wax wax wax na moom après da ngay da nga ci mhm. ñu mm. ubbi donc mm. après wax ji nag politique bi mais da nga teg jëf quoi kon da gis ne daal wax ji dafa bari. non wax dañu fi nekk di wax rek mais jëf moom amu ci. sincèrement jëf amu ci nekk di théorie mais jëf doof ci amul. te am na benn instant da ngay jëf quoi. Mhm. loolu la. Euh, parce que tey Medis Sénégal euh, mun naa mun naa wax ni peut-être tey ñu ko xamoon ci askan wi am na ñoo ne xamuñu ko woon mais ci bi ñu relancé linga nga xam ne moom mooy euh, mbiru chloroquine bi. Mhm. ci la coow li daal di jóg. ba ñu bëri daal di fàttalikuwaat Médis Sénégal ak yooyu ak liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi ko fi doon amal tey lu mel ni mm-hmm. chloroquine ñu dem ba yéen da ngeen ko doon fabriqué tey mu dem ba internationalement ñëpp di coow chloroquine ak euh, ki nga xam ne moom mooy Didier Raoult ak yooyu mu nekk protocole boo xam ne réew yi ñu ngi koy jëfandikoo pour faj euh, Covid 19 ak yooyu donc tey jii nii yéen loolu lan la leen di lan la leen di def. waaw donc chloroquine ñun ñun effectivement comme ni nga waxoon médecine xamoon ko chloroquine moo tax ñu xam ko déjà ça c'est problème. Mhm. parce que entreprise moo nekk ci mhm. euh, mhm. lu produit produit boo xam mën nañu ko defar man mi di wax ak yow atelier bi ko doon fabriqué man maa ko jiite. defar nañ fi benn loo donc lu ñu mën a defar la lu mën a nekk la ak yeneen ak yeneen ça ne pose pas un problème. il juste que ñu am matière bi fabrique amul benn problème. incha allah. Mhm. Euh, te tamit li nga xam ne mooy quand même chloroquine bi jur li nga xam ne mo mooy coow euh, donc au niveau international te mu nekk loo xam ne euh, Afrique moom yàgg nañ di ko di ko te bon amuloon benn jafe-jafe mais bon au niveau international ak ci période bi ñu ngi naan ay euh, effet secondaire cardiaque ak yu demee noonu maladie du cœur ba tey Didier Raoult ñu naroon ko ci andil problème OMS demoon ba daal di euh, arrêté en un moment euh, essai clinique yooyu. waaw man man nag bon man bu dee dans ce problème là moi je vais plutôt écouter. Mhm. ay écouter da donc le professeur comment il s'appelle sénégalais. Moussa Seydi. waaw Moussa Seydi nee na moom protocole bi baax na. Mhm. chloroquine bi baax na man moom lay mu dans ce cas donc euh, nañ ko déglu parce que moom Sénégal moo fi nekk euh, moo moo wàllu wàllu Sénégal donc euh, xam nga des fois day am ay enjeux ay enjeux problématiques ci affaire ay médicament international quoi donc je crois que mun nañ jox suñu suñu suñu suñu suñu côté ba mun nañ ci mën nañ ci déglu professeur Didier kii. professeur Seydi je crois que li mu wax c'est c'est bien chloroquine ñun a bi nekk dañ ko naan dañ ko naan màgg donc amuñu benn problème donc je crois que c'est des problèmes d'enjeux financiers moo ci nekk quoi mais luy faj la mm-hmm. mm-hmm. euh, am mm-hmm. ay yeneen ci am donc tey industrie ku ci nekk yaa ngi bëgg a xëcc que yaa génnee liy faj. donc Covid yooyu donc dafa ay lobby peut yoo xam ne am na ci. voilà voilà moom daal mm-hmm. comme ni nga ko waxee daal man je crois que professeur Seydi nee na day faj mais le taux de au Sénégal est acceptable donc je mm-hmm. crois que mm-hmm. amul benn problème le le sanitaire bi Sénégal utilisé je crois que il est efficace et il est très bien. Mmh. voilà euh, euh, dañuy euh, avancer un peu Cheikh Mbacké ci débat bi dina ñëw après ci problème médici mais de manière générale li nga xam ne mooy wàllu médicament. Euh, perception bi nga xam ne tey askan wi am nañ ko ci moom mooy tey bu fekkente ne soxla nga garab ci lieu conventionnel yi nga xam ne fa nga war a dem jëndi ko mooy pharmacie. Mhm. dinañ ñëw peut-être ak ci lieu non conventionnel yi ci kanam mais euh, fi nga xam ne nit ki fa la war a dem moom mooy pharmacie bi. mais gis nañu ni tey askan wi dañoo jàpp ne seen xel que ah pharmacie de boo fa demee garab yu cher lañ lay bind ak yooyu noonu tey est-ce que jàpp nga ne askan wi peut-être seen sensibilisation ci wàllu garab amul lu ci lu ci des. waaw euh, Ouli c'est un problème en fait complexe bu def fekkee ne affaire faux médicament yi la hmm. déjà nu la ko woon en fait problème boo xamante ni la déjà c'est pas une seulement sensibilisation parce que bu leen sensibiliser que jàpp naa ne koo xam ne déjà jàng sensibilisation ci la bëgg parce que ku jàng boo jàngee garab. xam hmm. fu muy jaar doo dem di jël garab si mbedd. xam nga benn la. Hmm. ñaareel ba mooy itam xam nga nit ñi foo ñor dañu jëndee garab. mooy lu ñuy wax euh, la couverture maladie quoi c'est-à-dire comme on dit a santé santé ki mën dafa cher yow muy feeku sax xam ne santé bu fekkee ne amoo amoo charge mi mënoo ko jënd dafa cher donc réew itam foo ñu développe pour def des charge yoo xam ne ñooy tax ñuy am garab garab kenn mënu ko jënd am prise charge def ngeen di cotiser ñetteel bi mooy cest à garab di jaay ci mbedd loolu ma dul yoon loolu tam dañ ko war dindi man hmm. loolu moom murit laa hmm. murit mais jaay jaay garab ñi par exemple ñi jaay tubaab garab ci ci mbedd loolu moom dañ koy defar mais fu muy jaar ñoom defar garab nga sànni ko parce baaxul da koy sànni parce que baaxul donc boo contrôlé baaxul da ko war a sànni. Mm-hmm. anticiper nga ci ci mbir mi parce que tey yaa koy wax nga ni waa Touba nga mais tey euh, état quand am na benn lajj boo xam ne lajj na ko ci mbir mi parce que euh, pointé nga ko du doigt donc tey xam nañu réseau.

Mm. qui est en de tuer des gens parce que yow garab gi nekk ci biir kan ne garab la. man mm. kenn contrôle ko. Mm. donc déjà ça c'est donc faut régler ça. amul benn masla ku a dañ la war a jàpp ñu ñu mm-hmm. gis nañ ne am na benn cas bu fi amoon ak euh, ki nga xam ne moom mooy euh, Wuri jàlloo euh, ñu génnee ko ci kaso bi ci ay quand même façon boo xamante ne kenn xamul après njiitu réew mi génn ne moom yëgu ci woon lenn donc mu nekk ay mbir yoo xam ne quand day daal di tey xel. waaw loolu lépp tout ça c'est lobby quoi c'est lobby mais comme ni la ko rek en tout cas je crois que loolu lépp lu koy saafara nag mooy nga am une industrie locale boo xamante ne ni il est puissant il est développé te garab yi yomb na développé fabriqué ay garab donc euh, loolu tam day day day day dina xeex gars yi jaay garab ci mbedd yi mais mënoo yow déjà tu es confronté à un problème de de de faux médicaments partout au Sénégal pare benn usine bi doon ñu tëj ko. Mm-hmm. ça vraiment c'est contradictoire quoi c'est une démission des autorités comme ni comme ni nga ko waxee contradiction la parce que tey waxoon nañ waxuñu woon am toll ci benn médis mais waxoon nañ am ay médis yi médis ci ci réew mi donc tey bi fi nekk bu buñ ko tëjee loolu ça ça pose problème te comme ni nga ko waxee hmm. gis nga problème mooy demal Tunisie Tunisie mhm. Tunisie mais ils ont une centaine d'entreprises mhm. plus de cent mhm. plus de cent te ñoom dañuy ñëw fii di jàng si ah ma ne te ñoom dañuy ñëw fii di jàng si ci suñu ah, université yi Euh, pharmacie ak ak mm. médecine. Mm. nga dem euh, de trois cent entreprises. donc comme lu wax daal en tout cas daal réew moom day dem benn instant wax ji moom dafa wax day da ngay da ngay da ngay jëf li ñuy gis. da ngay jëf li locale préférence locale parti patata bon ñi xam benn entreprise fa am tëj yaa yëpp toog di seetaan loolu daal moom wax ji daal moom dafa doy quoi maintenant dañu war a jëf quoi. Mm-hmm. instant état bi moom fi leen di xaar mooy jëf te on a on a vu vraiment sur ce de mise là que l' pas ferme. état est impuissant face à des investisseurs étrangers yoo xam dañuy def ñëw def lu neex. Mhm. sincèrement on n'a rien compris que ay eh, doomu Sénégal lañ doon fay suñu impôt chaque an avec salaire da doon fay chaque mois impôt dañu war a ñu réglé dañu war a ñëw ñu ñu réglé loolu mooy yoon. Mhm. mais ñu war a ñëw de par exemple man maa ngi Sénégal que force Covid bi ñu ngi commencé distribuer xaalis mais ñun mhm. toog nañ six mois fayekuñu. dégg naa ñu naan contre j'ai rien contre les danseurs mais boo demee ba jox ay cinquante millions danseurs yi mm. léegi les gens qui sont là qui qui étaient des travailleurs amuñu mm-hmm. donc vraiment Sénégal on a un priorité on a un problème c'est pas sérieux quoi mm-hmm. man laa gis quoi c'est pas sérieux mm-hmm. yaa ngi koy wax ci njalbeen nee covid bi daf ñu jàngal leçon bu mag te leçon boobu je pense que ni dañ ci war a fii fii la ñuy jaaree baax wala jaar fii nekk ci safaan wa mooy les priorités tey covid bi wane na ne sans santé tout est du dem mm. il faut une population pour se développer Macky Sall mu wax président Macky Sall xam nga dana euh, plan Sénégal émergent mais bon quand il y a une population qui est malade. Mm-hmm. euh, une population qui n'a pas de travail fa am. mais foo foo wax émergent yow sa jeunes yi amuñu liggéey ba pare waruñu kenn fabrique ko garab da jaay ay garab ci mbedd ay garab yoo xam ne baaxul nga ne da plan émergent. Mhm. mais c'est de la théorie mais c'est pas de la c'est pas c'est juste de la c'est dans l'air quoi mais ba tey yéen a ngi déglu seen émission SOS santé tey ñu dalal Cheikh Mbacké Tine moom mooy délégué personnel bu entreprise bi di euh, Médis euh, Sénégal donc ngeen nekkoon ci ay négociation euh, ci ak état pour que vraiment entreprise bi mën a redémarrer ses activités mais ba tey mu am ay blocages yoo xam ne am na si. waaw négociation yi état kii sax ministère de finances moom moo ko jiite woon entre ñun ak direction maanaam les employés ak la direction. Mm comme nu ma ko waxoon ci njëlbeen dama naan en fait bu investisseur di ñëw il doit être encadré investisseur mënul ñëw fekk fi benn ay liggéeykat nga ñëw mais damay jënd entreprise jënd ko. Mhm. dem ba seen dama bëri dama bëri ay pertes parce que ñoom la ñu waxoon dañuy dañuy seen seen seen business bi dañu am ay pertes. Mhm. donc du coup foo ñu wàññi salaire nit ñi. alors que bu nga jël entreprise yooyu da nga fekk ni ñu yor ay salaire mhm. mais ñoom da nga wàññi man déjà déjà premièrement j'ai ba si un investisseur étranger bu ñëwee. Mm. ñëw ba ci état ba ci état ñëw na la bon say doom man damay wàññi seen salaire wala sax wàññi boo xam ne mm. ma damay wàññi seen salaire à cinquante pour cent bu ñu ko wàññee jusqu'à cinquante pour cent. Mm-hmm. man engagement bancaire yi nga xam ne ah, je l'ai contacté lay def. doy na waaw. Mm-hmm. bu ko fayee xanaa kon man du lekk du naan c'est ça le problème c'est ça le problème donc négociation yooyu moo loolu kese la ah ñoom wàññi suñu salaire. yoo xam ne wàññi yoo xam ne ñu mënuñu ko déglu ñu ne loolu loolu moom d'accord ci hmm. donc loolu moo tax négociation yi bloqué mais luy wax état mooy ministre euh, SIPOA bi ñu bëri fi lañ jaar di liggéey. Hmm. di fabriquer ay garab pour sénégalais ak pour sous bi ay fu ne ay Malek fu ne fi lañ doon jëndee garab boo ko doon boo taxawoon te da ko jaay mais tu vas avoir beaucoup de secteurs yow ñëw yow d'autres ñëw jënd ko. fekk ñoom mënatuñ dem dañ dem ba tëddee non non qu'à dégager bu prévenir ñëw c'est aussi simple que ça état bi loolu la def. Mm-hmm. mu nekk mbir mu mu mu doy waax tey jii li nga xam ne ah. moom mooy wàll garab kameem dafa nekk problématique. Euh, garab mm-hmm. bi euh, askan wi du ñu ñeme sax dem ci pharmacie ak yooyu ndax dañuy jàpp ne dafa cher et mu mel ni kon daal tey jot na vraiment pour ñu gën a daal di ñoŋal gën a suqali li nga xam ne moom mooy industrie pharmaceutique bu Sénégal euh, dinañ ci ñëwaat ci kanam ma bëggoon rek ñu def euh, taxaw seetlu Cheikh Mbacké comme yow yaa ngi nekk ci wàllu santé euh, mhm. ñu wax ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 bi tey ji ñu gis ne au Sénégal quand même cas yi ñu ngi gën di avancer malgré mesures yi nga xam ne jël nañu ko ci tey ji yow nan nga jàngatee li nga xam ne moom mooy vraiment gestion Covid bi. waaw Covid bi waaw bon c'est c'est xam nga Covid bi nag c'est une maladie ni c'est comme on dit c'est une lu mm-hmm. fi yàlla wàcc la. Mm-hmm. Euh, ñun dañuy sant yàlla quand même vraiment parce que déjà dañuy sant yàlla quoi bu xoolee ñi la wër. Mm-hmm. xool France la fa xaw xool Italie la fa xaw États-Unis la fa xaw sant yàlla déjà. moi je suis nekk moi je dans le pessimisme quoi di di dañuy sant yàlla parce que loolu amagu fi. Mm-hmm. léegi nag li ci nekk mooy sensibilisation bi ngay def ñu takk masque yeeg les mesures barrières ñu continuer ko ba pare continuer faj mi loolu la mais c'est pandémie boo xam ne vraiment c'est c'est c'est international c'est pas seulement Sénégal nekk sant yàlla quoi vraiment foofu man autorité li ñu def en tout cas moi c'est c'est c'est c'est acceptable pour moi quoi. mais ñu mm-hmm. continuer ko continuer faj mi continuer sensibilisation bi ba yàlla suñu borom ñaan tam yàlla jëlee ko fi. Mm-hmm. vraiment noonu laa ko noonu laa ko jàngate quoi. Mm, surtout askan wi aussi gën a bàyyi xel aussi que xeex bi ñoom ñoo ko mën a xeex. waaw surtout ça quoi surtout ça parce que am na yoo xam ne c'est c'est c'est pas bon quoi que pandémie am nga gis nañuy dee Europe ci chacun l'a vu après nga ñëw ne par exemple nga ñëw di ko naan naan feebar bi amul loolu moom yabaate weesu ko quoi. loolu mm. moom waaw surtout ñi ñi weddi ne feebar bi am na. Mm. voilà loolu moom loolu moom loolu moom loolu moom yabaate yabaate yabaate fale mm-hmm. très sérieux loo xamante ne autorités yëpp ñëpp ñu jóg nekk si. je crois que c' est très sérieux te voilà quoi dañu war a jàppale autorités loo xam ne moom jàpp naa si des maladies xam ne comme ni ñuy wax quoi c' est c' est c' est c' est un peu dafa am côté benn côté divine quoi donc ñaan yàlla suñu borom mu jëlee ko moom rek moo fi mën a jëlee. Mm-hmm. mais du question ay ay je crois ay médicaments Mhm. parce que tey euh, ay tâtonnement rek am mais euh, pour ñu teg baaraam ci que lii mooy vaccin wala lii mooy garab bi faj je pense que amagul ay peut-être euh, dañuy jéem rek ay traitement symptomatique comme ni ko waa sante di waxee mais dooy na waar daal. voilà loolu la quoi loolu la loolu la traitement symptomatique moo fi nekk gars yi ñu ngi jéem ñu ngi góorlu donc respect en tout cas comme li ñuy wax feebar boo xam ne comme kenn amuñu la fajee. je crois que euh, prévention mu gën ko prévention ci la gars yi a war a gën a xuus mooy tous les mesures barrières ñu respecte ko euh, pour mën ci mucc quoi je crois que mu gën sax mu ne dal ko mm-hmm. euh, tey jii li nga xam ne moom mooy quand même wàllu garab ñun dañoo nekk ci Afrique donc ñu am suñu médecine aussi muy suñu baaxu maam di médecine traditionnelle. tey jii mm-hmm. ne lu mel ni artémisia am na li nga xam ne moom mooy. Euh, actualité bu mu bu mu fi defoon euh, tey ji est-ce que jàppoo ne euh, wàllum médecine traditionnelle war nañu aussi gën ko intégrer ci suñu pharmacie ñun suñu wéefi bopp gën ko dooleel gën ko régulariser formaliser ko pour que nit ñi mën ci jariñoo effectivement effectivement Oulu tu as tu as raison ah en fait même dañuy wax dañuy wax médecine traditionnelle mais bon traditionnelle par rapport à quoi parce que même gis nga garab bi ñuy wax ni garab bu la médecine moderne uh-huh. mais am na garab yo xam ne mais seen ay tout simplement peut-être mm-hmm. garab yoo xam ne c'est de la végétation. Mm-hmm. ay plantes ay garab la ñuy dagg. voilà jaaraat ci yoon processus nag ba am ci li ñu ci am mais ay garab la jógee. Mm-hmm. donc voilà te te sax bo xool maanaam développement technologique on va vers plutôt tout ce qui est chimie tout ce qui est synthèse gars a bàyyi. dem xam ne c'est des synthèses naturelles. bio yeeg yooyu. ah très bi bio. Mhm. foofu la gars yi jëm mhm. parce que dañ na chimie dafa bëri ay effets secondaires wala pare je crois que dañuy wax médecine traditionnelle mais li état bi war def mooy encadrer eh, tradipraticiens yi ba nga xam ne ñoom seen garab ñuy jël. Mhm. liñ ci soxla en fait parce que problème moy mooy boo jëlee garab di ko joxaan comme ça garab day am dose. day wax trois trio la qualité. mooy est ce que li nga joxe set na. la sécurité est ce que wóor na quoi est ce que dose bi ngay joxe c' est la bonne dose et war a faj est ce faj. donc je crois que su leen encadré euh, améliorer processus yi def euh, <clears throat> moderniser ni ñuy exploiter garab yi. je crois que ça sera même dans l' actualité ñu wax ne OMS gis nga ñu ngi wër. Mhm, ñu ngi wër am garab yoo xam commencé na ci def ay jéego. wala c' est très important. Mhm, commencé nañ ci def ay jéego ba euh, daal di sax coopter ay sénégalais boole leen ci donc mu nekk mbir mu am solo tamit. voilà. Mhm. voilà ba tey rek dañuy wëyandi euh, Cheikh Mbacké gis nañu ni tam wàllu garab bëri na parfois looy dégg-dégg dégg rupture rupture loolu des fois ñi nga xam ne dañoo amee ay maladies chroniques yoo xam ne faw ñu jël ay garab day nekk mbir mu mu doy waar bu ci mujj moom mooy bu euh, wàllu épilepsie bi donc mu nekk ay mbir yoo xam ne aussi wax nañ ci wax nañ ci veiller mais en général lan mooy waral loolu rupture yooyu euh, dafay fekk ne état dafa jëlu les devant wala exactement lan la. bu fekkee bu fekkee ne gardenal bi xam nga comme ni ma xam nga Sénégal aussi MEDES ko doon fournir. Mhm. donc MEDES su demee ba su ma dem ba taxaw mais stock bu fa des ba jeex après doo xam nooy def bu fekkee tam euh, xam nga bu fekkee tam euh, importation la des fois tam moo tax ma en fait garab ñu ko jaay si mbedd moo tax dañ xaw na parce que des fois pro pro pro des fois c'est des d'approvisionnement en fait mën na dem ba usine bu koy fabriquer. day dal des fois entreprise nga dem ba am problème si si benn affaire nga dem ba am problème sa sa ci ci ci ci processus de production. Mhm. loolu mën na indi rupture. donc d'où l'intérêt en fait que en tout cas chaque pays boo xam ne Sénégal dafa war a jéem ba nga xam ne médicament yu bëri yoo xam ne si essentiel nga xam da nga ko war a def production locale. Mhm. pour éviter ces coûts là ces euh, nga xam ne dafa c'est inhérent à la production quoi. Mhm. mën na dem am machine am problème mën nga dem ba matière première problème donc intérêt du l'intérêt que en tout cas tous les médicaments essentiels yu bëri da ko war a mm. def développer une production locale diversifier say say say say producteurs locaux quoi mm-hmm. loolu mooy indi rupture en général soit donc euh, usine bi dafa taxaw comme li dal épileptique parce que mais usine boo dafa taxaw instant bi tout mu indi bi mm-hmm. wala bu importation la entreprise bi ko fabriqué de sur sa ligne de production quoi loolu mën na indi rupture. Mhm. Mhm. Euh, tey jii yéen yi ngeen doon nekk en activité euh, seen euh, diggante PNA naka la doon demee pharmacie nationale d'approvisionnement. waaw PNA garab yu bëri ñoom ñoo ñoo leen doon livré garab yu bëri comme ñoom ay mhm. pharma d'hôpital bi a beaucoup de médicaments yoo xam ne mais nag mais nag c'est-à-dire ñoom. et l'État doit peut-être l'État bi moo a amal mooy la préférence. national. Hmm. xam nga ñuy wax naan xam nga Sénégal ñoom dañuy régler problème à moitié ñu ngi wax xam nga bu ñu génnee épileptique xam nga dañu génnee y a problème de de de de rupture de du phénomène orbital. Hmm. docteur PNA génne euh, que euh, mu ngi ñëw mais c'est ça ça c'est pas la solution. Hmm. yow a am usine mi yow nga bàyyi fi dem di importer ça qui n'est pas une solution. solution bi mooy nga dem ubbi entreprise nga fabriqué mu fabriqué ko donc la PNA euh, ci xayma ñoom neen il importe chaque année plus de cent trente milliards de médicaments cent trente milliards donc je crois que état bi war na dimbali entreprises locaux yi di développer pour que wàññi importation mm. parce que un pays doit se tourner vers la transformation locale o lieu que ngay chaque ngay importer qui se devient une Euh, euh, une société de consommation yow daal da ngay importer rek te loolu mënut loxo réew il faut nga transformer pour créer de la valeur pour créer des emplois mm-hmm. Mm-hmm. voilà mm-hmm. mu mel ni kon te am na xam nga xam nga importer garab je crois que loolu tam lu ñu war a xool la parce que est-ce que importation garab am ñoo xam ne da ci gagné xaalis parce que xam nañu ne c'est dans leur que ñu bañ a importer comme ba tey lobby yi encore une fois waaw loolu lobby am na ñoo xam ne en fait c'est que ça il faut qu'on regarde Sénégal quoi Mm-hmm. que dans nos pays africains que cest à trois personnes yoo xam ne daal bon que les seize millions de Sénégalais souffrent c'est pas leur problème ñoom ñoo fi nekk lool il faut il faut qu'on regarde ça en face quoi. Mm-hmm. est-ce que amuñ dafa am yaa des gens tapis dans l'ombre yoo xam ne importer garab moo leen gënal que ñuy produire garab Sénégal. ah parce que parce que li tax liñ ci gagné moo tax. doy na wax loolu interrogation la. waaw interrogation la boo xam ne ça mérite quand même euh, taxaw seetlu. pour vraiment xam parce que lii mënuñu ci continuer situation bi chaque fois di dem di jéegaane garab. non non non non non non en tout cas en tout cas le président de la République a montré sa volonté ferme mais comme je dis. ci ay wax la yem. voilà c'est-à-dire bon tous les séminaires internationaux avec ses homologues africains il a dit que voilà que l'Afrique doit être indépendante doit être souveraine en pharmaceutique. mais nga tamit loolu nga nga dem ci euh, bitim réew di fa wax loolu fekk de sa réew situation bi day xaw a nekk lu xaw a doy waar tamit. voilà c' est mm. après boo waxee pare nag léegi nag jëf nañu teg parce que man pour lii mënuma comprendre un président de la République bind lettre mm-hmm. un une mm-hmm. nga jël lettre nga bind que entreprise dama bëgg nga ubbi mais c' est à dire un mois war ñu tegu te c' est à dire dañu war a def sa jëf dañu war li nga wax li nga wax santaan dañu ko war a def mais mënoo joxe diggal bind lettre formelle que dem entreprise dafa war a ubbeeku parce que stratégie moo tax parce que souveraineté nationale moo tax parce que li parce que lii ba pare gars yi leen di këyitloo. loolu waroo kon waruñu ko nangu. kon dafa am benn faiblesse boo xam ne am na ci mbir mi ak peut-être ay pression comme ni nga ko doon waxee. non l'État l'État vraiment l' man c' est mon c' est notre ñun employé c' est notre propre pression l'État est par rapport aux investisseurs tunisiens. Mm-hmm. l'État doit être ferme. parce que comme moom moo ñu engagé pour nga ko développer bu ko demee mënatu ko développer il a qu'à dégager ñenn investisseurs ñu wala l'État nationalisé ko c'est aussi que ça. Mm-hmm. tey nationalisation bi est-ce que sax moom du moom mooy solution quand même. ah ma si c'était en tout cas ñun loolu la ñuy conseillé suñu suñu suñu suñu su suñu réew loolu la ñuy conseillé gouvernement bi il n'a qu'à nationaliser ça. Mhm. ou bien ou bien ou bien mu jël ay privé sénégalais en tout cas que ça soit parapublic que ça soit semi-public quoi ay privé sénégalais ak état mhm. parce que tey privé bi quand même bëri na ci ñoo xam ne je pense que war nañu mën a def seen xaalis ci ci ci mbir mi. du ñoo xam ne peut-être ils la volonté mais. comme ni nga ko waxee rek yenn euh, lobby yi. waaw bien sûr du mën a nekk la du mën a nekk la. Mm-hmm. tey jii nii yéen ñi nga xam ne yéen a ngi peut-être doon liggéey foofu euh, à peu ay ñaata ngeen fu mu toll nii ñi nga xam ne ñu ngi nekk en chômage ak yooyu. waaw c'est plus de c'est plus de trois cents personnes mm-hmm. parce que am na bon disons xam nga chaque entité am ay lu ñuy wax ay permanents. Mm-hmm. ak ay temporaires. permanent yi c'est plus de cent vingt. Mm-hmm. permanent yi c'était plus de on était cent vingt bon journalier yi c'était plus de deux cent cinquante jëm kaw yoo xam ne fa doon xëy. Mm-hmm. donc actuellement tu as dans la tu as trois cent plus de trois cent pères familles yoo xamante ni ben depuis le quinze janvier amuñu benn revenu te pendant pendant des années et des années ñu ngi doon cotiser ñu ngi doon ñu ngi doon feeku di cotiser ñu di cotiser suñu suñu suñu impôt. léegi ñu am problème ñu taxaw dañu seetaan c'est ça qui n'est pas normal au Sénégal dañ ko war a loolu dañ ko war a yow mënoo booy feeku ñu tàgg sa sa salaire à plus pour cent sa salaire te boo amee problème ñu toog di la seetaan di la xool donc je crois que dans la politique industrielle du président Macky Sall xam nga dañuy wax affaire emploi des jeunes. Mm-hmm. mais mënoo ñëpp lépp nekk commencé di yàqu yow nga koy teral pare na day wax emploi déjà li nga xam ne li nga moo am il faut nga protéger ko avant ngay avant wax. de créer d'autres emplois li fi nekk na nga ko na ko na nga ko na nga ko kii ba pare. na nga ko aar ah, ba pare. donc euh, on a vu beaucoup de failles hein. vraiment l'inspection du travail aussi c'est quelque chose à à dans ce pays-là. ñoom lan euh, lañ leen wax loo xam ne quand même euh, lu lu nit lu nopp mën a dégg la bi ngeen fa demee. fan ba léegi inspection du travail. waaw inspection du travail nag xam nga inspection du travail moom c'est ñoom en fait ils jouent ils jouent pas c'est pas le tribunal quoi ñoom day ñëw ngeen ñëw. kii wax li kii wax li bu fekkee mën leen jubale ñu jubale leen su mën leen jubale nag ñu leen dem leen tribunal ngeen ngeen dem tribunal. léegi yéen eggagu leen foofu tribunal. Euh, mën nañu fa yegg mën nañu fa yegg état bi la xaar su fekkee deful li mu war def xam nga fa la dossier ba kon. Mhm. est-ce que lancé ngeen benn ultimatum ak yooyu pour peut-être parce que quand même euh, gis nga euh, Cheikh Macké. Mhm. ci réew mi. dañuy faral di wax ni en général il faut passer par les gros moyens. maanaam nga wone sa bopp ah, marche grève pour que nit ñi mën la dégg dafa mel ni réew mi noonu lay doxee léegi bu ngeen toogee noonu yaru rek euh, banque peut-être euh, seen kàddu du gaaw a jib waaw loolu la ñuy loolu la ñu gars yi wax loolu la ñuy loolu la wax mais c'est très dommage que dans un pays que il faut violent pour que ñu dégg la loolu c'est mm. pas c'est vraiment très dommage que que ngeen violence dem ci tali ay pneus pour ñu dëgër quoi. mais pas loolu sax mais quand euh, par pourquoi pas marche pacifique wala yooyu. oui bien sûr non c'est pas c'est pas exclu hein c'est pas exclu mm. parce que ñun en tout cas on est décidé on est décidé à nous faire entendre on est décidé à avoir gain de gain de cause ah kooku moom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi déglu état bi moo moo yoroon négociation yi ñu ngi déglu aussi suñu syndicat xam nga suñu syndicat tam dañ koy déglu. Mm-hmm. mais ñoom daal ñoom leen déglu incha allah. Hmm. ministère de la santé jot ngeen a am ak moom ndaje wala audience. bien sûr bien sûr. il nous a reçu Abdoulaye Diouf Sarr. Sarr moom dossier bi nag dossier bi au début c'était moom ko doon traité. Hmm. mais bi nga dee ba bi nga dee nag moom dossier bi en fait bon c'était pas en fait li ñuy wax euh, comment dirais le ministère de tutelle. Hmm. ministère de l'industrie la quoi. Mhm. donc ministère de l'industrie ak ministère des finances ñoom ñu nekkul ci dossier bi. Mhm. benn ki euh, transversal la. voilà. Mhm. mais ab monsieur Diouf Sarr il nous a reçu nañu réunion au niveau de ce ministère. dossier bu njëkk moo ko yoroon mais après daf ko passé au ministère de l'industrie ak des finances. voilà. Euh, voilà tey jii nii Cheikh Mbacké dañu gis ne tam Sénégal aussi beneen euh, fléau dafi am mooy automédication. di gis koo xamante ne boppam day metti mu dem jëndali boppam paracétamol naan ko wala beneen garab euh, euh, mu nekk ay mbir yëpp a ngi koy wax yaa ngi ma koy wax léegi yéen da ngeen di fabriquer paracétamol. Mm-hmm. donc euh, mu nekk garab boo xam ne quand nit ñi dañ koy jël tout azimut saa yu leen neexee dosage yeeg yooyu daal mu nekk mbir mu xaw a kéemaane tamit. waaw automédication bon en tout cas c'est pas du ma wax ne en fait. c'est interdit, mais c'est à prendre avec modération. Mm. Voilà, c'est à prendre avec modération. Vraiment pas le faire à chaque jour nga dem def automédication bu fekkee ne sabab day metti bien sûr mu digal paracétamol mais pas vraiment de façon abusive quoi tout hmm. simplement Mmh. parce que dañ dem ba jàpp ne day mel ni sax paracétamol moom amul sax effet secondaire noonu la peut-être askan wi di ko jàppe parce que da ngay gis koo xam ne moom da koy naan tout le temps non non amul médicament bu médicament yëpp am effet secondaire donc euh, vraiment en tout garab moom boo ko naan ba laa ko a nga naan garab quoi feebar. Mhm. mais chaque médicament a des effets secondaires yoo xam ne peut-être yow doo gis tout de suite mais jàpp naa garab chaque jour moom. diggaluñ ko kenn quoi. bien mhm. que qu'on ne soit pas des médecins mais c'est pas c'est pas recommandé en tout cas. Mhm. est-ce que euh, jamono yi nga xam ne Médis mu ngi doon marché daan ngeen peut-être am ay étudiants yi daan jógee euh, fac médecine pharmacie ak yooyu ñëw di peut def ay stage foofu. di xool un peu processus bi pour quand même mu am benn euh, relève ak yooyu. bien sûr en fait. tous mhm. les pharmaciens industriels ah nga pharmacie dafa bëri dafa bëri ay options quoi en tout cas option mais foofu ministre la doon jaar ministre la doon jaar pour def seen stage donc man sax instant nga xam ne dañu war a génn fi ñu nar a defee stage bu fekkee ñun dañu tëj loolu tam c'est c'est une grande question fan lañu a dama jaaxal trop parce que tous les pharmaciens yi nga xam ne dañoo def hmm. ñoom fu ñu fu ñu fu ñu nar a defee stage man dama jaaxal trop. loolu aussi c'est un autre problème. waaw c'est un autre problème parce que en fait la formation comment tu vas comment les gens vont faire de de l'expérimentation c'est un autre souci. mu mel ni daal mbir mi bëri na ay ay jafe-jafe comme niñ koy mhm. waxee rek euh, de manière générale santé ci boppam moo bëri ay jafe-jafe Sénégal te Covid bi wane na ko effectivement parce que en fait xam dañu prioriser quoi cest dire dëkk da ngay jël ay priorité quoi hmm. te les priorités doo ko wax rek mu nekk théorie quoi mais da ngay dem nga jëf ko te vraiment les domaines prioritaires comme ni ma santé ci la bokk mais vraiment ak industrie en fait aussi l'industrie locale quoi hmm. man euh, vraiment le gouvernement du Sénégal je l'entends beaucoup bon infrastructure mais côté industrie création industrie vraiment c'est laissé en rade quoi mhm. c'est laissé en rade le ministère que sax man man on le connaît pas bien Moussa <laughs> je le connais pas très bien mhm. donc moom euh, mooy gérer industrie mais kenn mhm. donc dans un pays c'est un problème donc c'est ça qu'on attend d'un pays mais pas nekk ci ay affaire voilà quoi ay secteurs yoo xam ne c'est pas dëkk moom jeunes yi moom pour ñu am emploi moom foo ñu foo ñu développer industrie industrie rek moo moo moo ci mën moo ko mën def moo ko mën def industrie développement ay ay yëpp c'est c'est c'est de la politique hmm. te de plus te de plus en plus euh, moom même jiitu réew mi ah euh, mu ngi ñaax xale yi jeunes yi pour ñu gën a tourner vers les matières scientifiques yooyu. mais tey boo leen poussé foofu tamit te industrie bi doxul loolu tamit dafay nekk loo xam ne mën na nekk jafe-jafe. bien sûr bien sûr bien sûr il faut il faut mettre les conditions les les, conditions pour que industrie mun développer au Sénégal pour que ni ñi mën am liggéey nga développer aussi entrepreneuriat bi aussi. Mhm. yooyu yëpp yooyu yëpp c'est à développer. mm Euh, hmm. voilà euh, donc li des ci émission bi bariwul Cheikh Mbacké tin mais peut-être tey rek euh, ñu nga wax ñu li nga xamante ne moom mooy wàllu peut-être seen doléance yi fu mu toll nii leen tey ci tey bu weesoo peut-être ubbiteelu entreprise bi lan ngeen bëgg loo xam ne ay conditions la pour que entreprise bi jëfe ko daal ak état. waaw Oly donc maa lay remercier waat donc comme ni ñu ko waxee depuis janvier entreprise yoo ñu wax Médis Pharma mu di benn entreprise Sénégal nga xam ne benn kese la fi donc euh, dafa tëj ay portam nga xam ne dafa am ay difficultés financières le président Macky Sall nee na jox na instruction gouvernement pour ubbi ko mais ba léegi ubbeeguñ ko ba tax d'accord guñ ak euh, ñi ko moom muy tunisiens yi Médis parce que li bëgg mooy dañu bëgg wàññi seen salaire yi te loolu duñ ko nangu ko nangu loolu duñ ko nangu parce que loolu c'est contradictoire ak euh, code du travail c'est une violation du te dëkk day amul yoon dañu war a l'état doit faire respecter la loi léegi li ñu la état ñi ñaan état mooy comme ni ko waxee la santé c'est un domaine prioritaire euh, souveraineté pharmaceutique ci la bokk. Mm-hmm. donc état bi dugal ci loxoom surveiller aussi li nga xam ne moo moo nekk ci kër gi. nga mm-hmm. xam ne li xam ne moo xew. ñu mën démarrer usine bi te itam dootu moon ci amati c'est-à-dire dootu mën kenn du mënati taxawal usine bi. dafa mm-hmm. mun nekk nag il faut que état dugal ci loxoom. actuellement ils sont à moins 1 pour cent du capital il faut que ñu yokk seen doole ci capital bi pour mun am benn mainmise sur la société. waaw. Mhm. Mhm. li euh, fi euh, ruusandoo woon ci seen émission SOS santé Cheikh Mbacké Tine ñu may nga euh, tàggatoo ak mbokki auditeurs yi. merci Wuli maa lay sant bu baax di la gërëm di gërëm waa Rewmi FM. Mhm. vraiment on a depuis que problème MEDIS am. chaque jour da nga ñuy woo. Mm-hmm. Rewmi FM dañ def def jàpp bu baax te loolu en fait loolu mm-hmm. vraiment ñu leen remercier baax si votre ligne éditoriale parce que. Mm-hmm. c' est des problèmes yoo xam ne c' d'ordre national yoo xam ne très important quoi. te ñi ci war di wax. donc ñu di gërëm di gërëm seen auditeur di gërëm aussi waa MEDES. Mhm. Sénégal ñu xam ne incha allah ñu leen di gërëm bu baax a mhm. di la jaajëfal encore une fois Cheikh Mbacké ma fàttali ne yow yaay délégué bu personnel bu MEDES euh, Sénégal nekk euh, ab entreprise pharmaceutique boo xam ne dafa yëngu ci wàllug euh, garab nekk fii ci Sénégal tëj depuis nag janvier mu nekk jafe-jafe goo xamante ne quand même autorités yi wax nañ ci jóg ci lu gaaw ndax garab dafa nekk loo xam ne. dafa am solo wér-gu-yaram dafa am solo te Covid bi won nañu ni wér-gu-yaram bokk na ci lu njëkk li nga xam ne nguur gi nekk euh, war nga ko teg sa kanamu programme donc dina la bu baax Cheikh Mbacké Tine di jaajëfal itamit sunu mbokki auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi di leen dig dajee kon vendredi bii di ñëw lu ko dalee 18h euh, jàpp 19h ci Rewmi FM 97.5 mun ngeen dégluwaat itamit émission bi ci 3w point rewmi point com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jërë ngeen jëf.